koo xam ne boo ko attaqué mettre nga danger sa population yëpp parce que benn nit koo xam ne xëy na foofu la toll mën naa rey boppam reyaale la kon yaa ngi euh, trahir sa population li taxoon ñu fal la parce que li faxoon taxoon ñu fal la bokk na ci nga sàmmal leen seen sécurité ci buñ nekkee ci bi seen biir réew ak buñ nekkee bitim réew kon Macron li mu def mettre na danger mboolem koo xam ne citoyen français nga ndax mën ngaa génn dajeeg benn waay ci mbedd mi xamul xamul sax li Macron def waaye mu gis ne kii Macron moo ko jiite rek mu attaqué la ray la kon mën naa ne lim njëkk a def mooy trahir population ah, beneen bi ci def ñim yabal ci réew yi tey gën nañoo yokk seen sécurité muy ambassadeurs yi seen ambassades yi danañ génneewaat ay milliards ngir sàmmaat seen réew kon kooku kay du ko ndaw bañ kaa laal moo gën laal ko beneen bi ci ñoom ci seen bopp am nañ seeni i loi yuñ teg mooy président bi ci boppam dafa am àq ak yelleef yuñ ko war a jox ba boo dalee ci kawam ñu jël la yóbbu la ci yoon wan la ne la danga nga manqué respect président waa ki nga xam ne réew mu ne ma fa yilif ay millions yi millions yi doomu aadama yow ngay ñu sàmmal la sa àq ak sa yelleef ci sa biir réew. ki nga xam ne président àdduna bi la nag moom ñu ko war a def mooy sàmmal ko ak xam ak yelleefam beneen bi ci def damay delluwaat ci ñun sénégalais yi dajee nañ tey lu ñu tax a dajee ñu ne dañoo bëgg yenantu bi waaw nit ki nag nga sàmm jëmmam nga sàmmal ko mission moo ko gënal lii xew senegal yëpp ñi koy def dañ ne yenantu bi lañ gëm ci lislaam lañ leen tudd rayante bi ñun la fexee lante bi ñun la waxante yu ñaaw ñun la dogante gi ñu dogante ci sunuy mbokk ñun la rassemblement bi baax na waaye sàmm mission bi indi woon yenentu bi moo ko ëpp solo yar sunu doom yi ci lislaam bañ xam kan moo yenentu yàlla Muhammad moo ko gën nañ waxante dëgg chrétiens yi euh, euh, ñi nga xam ne ñooy euh, yor école yi nga xam ne ñooy fay li gën a seer Euh, déedéet waxuma ñooñu sax mooy ñi jugee ko France te doon tere muuraay waa Sandarka doomi ñan ñoo fay jàng doomu ay jullit ñaleen di jàngal dañoo bañ yonentu yàlla Muhammad bay tere muuraay te muuraay bokk ci mission yonentu bi sallallahu alayhi waaw ki nga xam ne yaa koy financé ngir mu dund te li ngay wuti ci moom teraangala sa doom day jàng ngir am teraanga dong moo waral euh, xale bi dem jàngi ci école tubaab bi boo duggee ci bàmmeel lañ lay laaj moom nga war a gën a fonk ni li nga xam ne boo nekkee ci àdduna day jeex ba tax na li naqadi yenentu bi yëpp ñun ñoo koy def Seydi Aj Maalik nag dafa bind radiallahu taala mu ne wa laysa nafun ala xubbin bila amalin wa taabi an sunnata almuxtaari taxtanimi mu ne bëgg naa te ki nga bëgg la muy def doko def mu ne amul njëriñ dang ko tuddo way li ngay wax du dëgg kon li wone ne bëgg nañ yonent bi moy nañ dundul l'islam jakkay yi vidna na na jakk joy dugg tisbar fekk mu fess nit ñi gennetuñ ci seen kër yi di dem ci jakkay yi di julli te yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam daawul tardé jakk ñu bari aljuma ak aljuma lañu ñuy ci jakk kon rassemblement bi kum jaral nga juggé ko euh, quartier par quartier wala mu nga juggé ko. dëkk par dëkk te buñ noddee ci jàkka ji doo dem julli buñ ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah da ngaa ñëw ngir xummeel waaye mission yonent bi bàyyiwul la ci kaw suuf rassemblement bi ci la bokk moo tax ma ñëw waaye nag buñ ñëwee ngir rassemblement bi buñ fi jógee ko na jàkka yi dundaat na jikko yi rafetaat na jëflante bi rafetaat sunu diggante ak chrétien yi ma daaneele leen li may wax lu ma amal solo la message bi président de la république laa koy lancé muy président Macky Sall place bi dajaloo nañ ngir politiqueel ko ba sonn mu ñëw ngir lan intérêt personnel loo def ci sa poste gagné ay milliards sàmm loolu moo ko jaral mu ñëw tey bu duggee ci bàmmeel liñ koy laaj mooy ndax loo xam ci yonent yàlla Muhammad tey gisuñu ko te ñun fi mu toog ci sama tur la toog man man en tant que sénégalais ci ñi koy wateel wala ñii fal président man ci laa bokk tey gisuñu ko dégguñu ko gisuñu ndawam lu tax mooy bu fekkee dafa bañ Macron mere ko ñun ñu mere ko moo gën a garaaw Macron mere ñu mere ko ñun moo gën a garaaw Macron mere ko ndax Macron buy wax ak ñu moom sénégalais yi moo tax Macron di wax ak moom buñ ko jëlee ci place bi mu toog du waxateeg Macron kon jaadu woon na mu bind wala mu def déclaration naqarlu liñ def yonent yàlla Muhammad parce que tey buñ daloon ci kaw Macron li muy njëkk def mooy bind naqarlu liñ dal ci kawam kon tey ki gën na tedd ci ñun yenentu bi moo ñu gënal Sénégal yenentu moo ñu gënal Sénégal na leer Sénégal li muy rëy rëy buñ duggee ci biir bàmmeel kenn du ñu laaj Sénégal yenentu bi la ñuy laaj kon moo ñu gënal Sénégal yenentu bi moo ñu gënal petrol yenentu bi moo ñu gënal ay milliards ndax li mu nekk bu ëllëgee même bu difficulté amee moom mooy def intervention ngir ñu mën a dugg àjjana koo xam ne nag bu difficulté amee moo lay defal intervention duñ ko jëlee ay nitu àdduna yii de waaye alalu àdduna yii de day jeex lu mu bëri bëri dañ ko fi bàyyi kon nañu sóoraale président sóoraale ñu lépp looy mbo mboolem looy signé di ko signé ci turu sénégalais yi sóoraale jullit yi nga jiite bu dëppoowut ak seen bëgg-bëgg bàyyi ko bu dëppoog seen bëgg-bëgg nga def ko waa adduna bi mere la ñun ñu mere la moo gën a garaaw asalaamaaleykum wa rahmatullah